jërë ngeen jëf mbokku internet bi ci réew mi TV mbokk yi mbëkk la waat ak contentement bu baax a baax ñu jàkkaarloo ak yéen di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen sàkk ci yéen fu waaye mën nekk ci àddina bi ñu bàyyi xel à travers li ci réew mi TV ñoo ngi lay nuyu. comme suñu proverbe rek ba du comme ni nga faral di waxee rek ñu ngi kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal suñu sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général kulu Tijaan hmm, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ba naal bi mu naal biir kër maamam Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla may ko mu àggale ko ak jàmm ak salaam noonu ñuy nuyoo al muntaxa borom mbégte moom aussi ñu koy ñaanal bu baax a baax ba naal bi nga xamante ni naal na ko biir kër maamam Cheikhul Khadim yàlla na ko àggale ak jàmm ak salaam noonu ñuy nuyoo bépp xalifa généraux bu ne si biir réew mi rawatina ñi nga xamante ni nag ñoo ne si jàngu bi ñoo ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla defal leen jàmm di nuyu kilifa kër gi Serigne Fallou Seck borom taab Serigne Touba Xayra Serigne Maam Jaara ak soxna Bana bàyyi beneen bu ndaw ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuy laay Lespro Ah, bàyyi bébé Kumba borom siin temps mi ngi siin man ngi koy nuyu di ko wax laay namm naa la di nuyu Serigne duur BBC maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suñu papa per musaa Fall bu Sa Thiès ah, borom ceeb ak doole ñi ñoo ngi koy nuy bu baax baax suñu papa Moussa Fall moom borom baax la l'homme social la waxtu nit ku baax la yàlla na ko yàlla suñu borom gën defal jàmm taalibe Cheikhul Khadim boobu mbokk yi yaakaar naa làmb sàjjiwaat na moom la ñu mën a wax combat yi neex taxawaat na combat bi nga xamante ni Balla Gaye 2 la fàttali Modou Anta ak Modou xarañ lu taxaw na ndax boo nee Talfa nga boole ko ak Pokola loolu bis dàqu ko ñenn ñoo taxawal bis bu ñu mel Alburax Events macha allah yàlla ñu fekkee bis boobu waaye ay làmb yu am solo mbokk yi nekk suñu kanam combat royal Modou xarañ loo Siteu mois de novembre la combat làmpleur le 21 juillet la mbokk yooyu yëpp tey dañ koy dajale waxtaan seeg sans frontière Modou Anta ne woon naa ne reporter la. waaye léegi chroniqueur yi yóbbu luñ ko dara yal na ko yàlla gën defal jàmm taalibe sëriñ Saliou bàyyi Saliou bu ndaw maa ngi am mbégte bu baax a baax ak contentement jàkkaarloo yow di la nuyu di la bàyyi nga ñëw teg internet jërëjëf sëriñ maa lay siyaar di wax ne ons billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. di julli ci yonante bi di sant suñ ñaari waajur mm-hmm. di nuyu sama waa dëkk muy waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène daan mbajaan kàdd mbajaan a mbuso sànc mbuso ndiir mm-hmm. di nuyu sama mbokk saalum saalum yëpp aussi tamit di leen jaale waat lu ñu bokk muy siñ laay Diouf im ñu siñ Thierno Diouf Lambaay mm-hmm. di xalifab siñ Thierno moo wàññeeku woon mm-hmm. mercredi bi passé moo nekkoon sarax si saraxu ñetti fan la ñu koy jaale famille Diouf yëpp ak taalibe yeeg murit yëpp ñu leen koy jaale di la nuyu di nuyu waa diaspora bi yëpp di la jox sa wàccuwaay rek gàttal ba ci kanam incha allah. même même sëñ sëñ Ateex bu sëñ Fallou moom aussi yaakaar naa dafa wàññeeku tey ñu a baax yërmande suñu borom jur si. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. Hmm. macha am na solo Modou yaakaar naa làmb sàjjuwaat na. Hmm. combat milieu comme lu ko gars yi waxee ne combat milieu la combat milieu taxaw na. waaw waaw combat des rêves la. Hmm. parce que tamit gaa yi ko rêvé woon bëri na quoi. am na ñu bëri ñoo xam ne dañu bëggoon bu ñuy dajee ñoom ñëpp ñu nekk ci ay dynamique de victoire mais jaam ak pexe yàlla ak dogalam man xaman naa ne tôt ou tard dañuy bari parce que tamit dafa am foo xamante bi ni ñaari mbër bu buñ fa jaaree rek wala am benn mbër boo bippee fenn rek tôt ou tard da ngeen di daje muy tal fa ak Pokola muy combat bu neex combat boo xam ne bi mu taxawee déggoo ku ne ax du komba wala ku ne ax nangam làmb loolu moo si neex mm-hmm. waaw taxawal làmb ñëpp ne gongo mais taxawal làmb ñii naan ah man diw moom mm-hmm. yooyu neexul quoi ñu ciy félicité waat alburaax bu baax di nuyu kilifa gi muy bàyyi di ko siyaar bu baax di ko jox wàccuwaayam léegi mm-hmm. combat bi nga xamante ni ñu ko bëggoon bëri na te yow gëmoon nga ni trop tard bi la affiche day taxaw lan nga jàpp ni moo waral nga doon am dut boobu lan la xale yi ñoo toll ni ñu mel wala da nga xam ni combat bi nga xamante ni amateur dañu soxla wala lan la la rek xam nga lii tamit day yee seen moroomu xale yi mm-hmm. xam nga tey ñun mën naa ne lu si man di am ñun la du ma ne man la ñun. Mhm. parce que tamit ñooy fekk fu nekkul dara wala ku kenn gëmul ñu fexe ba ñëpp gëm la. Mhm. tey seen traag bi biñ koy sànnante à travers les sites internet la woon. Mhm. da ngay seeti diw mu wax nga dem jëli keneen ak keneen boo xoolee vidéo yi ñu ci def ci diggante entre Talfa ak Pokola. depuis deux mille vingt deux ba deux mille vingt quatre. comprendre nga ba tey combat bi doo ko taxaw kon da ngay xam ne. suyee nañ ci role bu am solo ba promoteur yi doog nu cee fekk si. moo tax damay wax mbër yu ndaw yi espoir yi du ma ne mbër yu ndaw yi sax espoir yi. képp koo xamante bi nii bëgg nga sa moroom. bu la Modou Anta seet see bul ne ax du ma tëkku mbër. gis nga tëkku mbër dafa baax. parce que tey loo tëkku tëkku mbër du tee bu ngeen bëree. Mm-hmm. daan daanu match nul moo fi am. Mm-hmm. comprendre wax na fi lu ne mbër. Mm-hmm. ñëw daanu mbër wax na fi lu ne mbër ñëw daan mbër wax na fi lu ne mbër ñëw match niin loolu la quoi léegi nag Talfa ak Pokola ñoom ñoo yombal liggéey bi kun jëli nga sànni traak ñu dem jëli keneen ba def ko coow ay yeneen booy yi fi nekk muy ay caatu daaw dafaal ay Jóob de Mor Kankang Liis Njaago Tafa Mbër Boy Dakar Kaaw Gourdin bëri na seen génération boobu dañoo bëri kenn ku ci nekk ki nga bëgg a bëreel bul ko may jàmm boo waxee ci moom ñun buñ demee si moom mu tontu lii ya tax rek ba combat bi amateur yëpp bëgg ko. Mhm. lool la rek ñoo ci def coow quoi. ñoo ci def coow macha allah. Mm. su ma laajee kan benn booy la bu dëkk fii Cambérène. 2 mm. ba 3 benn booy bu dëkk parcelle. Mm. bëre mbapat nag. parce que man mbapatam mën naa ne temps yi muy bëri ay bis crème boobu seetaanu ko. man li ma seetaan mooy mbapatu Ibamaaram. ak adresse bi muy bëri foofu. mbappat yu mag yooyu macha allah mu ciy wone boppam. xam nga tamit mii su toll ni Iba Mar Diop nga ñëw jël ko mm-hmm. loolu cuune mënu ko jël mm-hmm. te Talfa jël na fa sama kanam bu muy bëreeg Libidoor bu Ngunjaan mm-hmm. loolu sama kanam kenn nettaliwu ma ko bëri na ak ay x sama kanam kenn nettaliwu ma ko bëri na fa ak Yankaw sama kanam bëri na fa ay champion yu bëri Iba marge Gueye lit sans frappe nekk champion dugg ci làmb bi mu duggee ci làmb yàggul tegle six combats six victoire daan puy deux daan capitaine muy kële ne booy bi nekk Bada Jonn mhm. ñi naa koy Fodé Mbisaan waaw mhm. Talfa daan ko mhm. daan Pape Diané bi mu jógee ci loolu aussi tamit ñu jox ko jaasi pël premier grand combat am 19 juin 19 juin 2022 jour boobu la soq doon bëre ak Franc moom moo doon bëre Iba moo mook jaasi pël mu daan jaasi pël bi mu jógee ci loolu tamit ñu jox ko soq bu ndaw 17 décembre 2023 mu daan soq bu ndaw comprendre nga ci 2022 bi ci la dugg ñu jox ko mbaytin mois de août mu daan mbaytin ba dernier combat bi nga xamante bi moom la ko Youssou Ndour daan muy sept combat six victoire benn défaite mm. muy bëri xale bi nga xamante ni duma ko taxul nga daan ka moom Pokola Balde parce que loolu yaakaar naa slogan am la loo ko duma duma duma duma lu mu métti métti métti moom day yóbbaale ndamam kan mooy Pokola exact waaw champion la Pokola champion la man tamit li ma ràññee Talfa noonu laa ko ràññee. Mhm. parce que ba muy bëreeg Franc mbapat sama kanam. loolu man kenn nettaliw ma. Mhm. <laughs> sama kanam. si ba ñuy bëri sama kanam loolu kay kenn ma. Mhm. parce que boo dee xool boo yu bëri li tax yàlla dogal ma xaw leen a xam ay aada faas yi ay yi dama teewee seen mbapat. bu dee aada topp naa ko terrain banque ba bu dee ay Talfa Pokola yi bi ñuy bëree Ibamaar sama kanam parce que man dama doon def. yenn làmbu arène yi bu amee. bu neexut loolu rek. damay dem Ibamaar wala ma dem adresse wala dem dagg seetaani parce que foofu ngay gën a dund lit pire premier combat bi mu ñëwee am na benn booy bu mu bëreel damay fàtte tour bi mm-hmm. loolu man maa ngi foon jour boobu sax fekk na nekkaguma ci presse bi mm-hmm. Pokola daan ko mm-hmm. deuxième combat mu ñëw bëree kii nu mu tuddati giri bu Malika giri bu Malika daan ko bi mu jógee si giri bu Malika ñu jox ko booy molomp mu dóor mu dóor booy molomp mu daanu bi mu jógee si booy molomp ñu jox ko magu sitta bi magu Siteu bi léegi gëj naa bëre sax am Siteu mu dóor ko mu daanu bi mu jógee si loolu tamit jox nañ ko fi kan euh, bébé guy gi bébé guy gi daan ko mu dem bëri jeeg papa kan numéro 2 combat bu bëri coow mm. mu daan ko papa kan nag dégg naa mun a def na recours mm. ba mu jógee si loolu premier grand combat am ñu jox ko deux 17 juillet 2022 xam nga 2023 ah 2022 mm. boobu la fuuta mii njëkk a dugg si ci làmb mu jox ko daam sugeer mu dóor daam sugeer mu daanu bi mu jógee ci daam sugeer ñu jox ko serpent mhm. boobu serpent mosul am defet serpent bu Grand Yoff parce que mhm. serpent yi daa bëri quoi mu daan serpent mhm. mu jóge foofu ma taxawal kombaam ak bul laal mu daan bul laal mm-hmm. mu jóge foofu ma taxawalaat kombaam ak gàkku dë mm-hmm. mu daan gàkku dë mm-hmm. mu jóge foofu ñu jox ko kan Liss Ndiago mu daan Liss Ndiago par avertissement kooku mooy Pokola. yaakaar naa Pokola yi noonu yaakaar naa démb ñoom ñaar jot nañu def seen première face to face mu tàng jër di ma fàttali Balla Gaye ak Modou Lo en 2010. non tàngagul sax <laughs> Serigne tàngagul de. parce que euh, Pokola dafa nekk ci baisse de forme. fa nekk ci Plaisir. Mhm. kenn ku nekk daa am looy réserver sa bopp. Ah, <laughs> mais eh, tàngagul yee tàngagul ñoom ñaar ñëpp bu fekkee instant la ñuy wër ñu ngi ci cinquante six yi wala soixante yi buñ rawantee ci doole sax instant yi bariwut hmm? mais ñoom ñaar buñ demee ba saison bi tëj ba ubbiwaat. ba <laughs> ba yàlla ba yàlla ji taw. ba gàncax gi sax. Hmm. saay bu ñu dellu si waatee bu ñuy siñee bu yeboo ñu indi force de l'ordre bu doy de. wallaay lancim non. saay lamb ji nii. buñ ko xeeb quoi man xam naa niveau wu combat parce que tey man dama doon rêvé bu ma doon promoteur ma taxawal combat bi. parce que parce que non dama xam dama xam après la ciy tege quoi. Hmm. parce tey day am ñaari mbër yoo xam ne boo leen gisee seen xar kanam rek. Hmm. gis leen seen day da ngay xam ne ñii tôt ou bu nu wuree day neex. Hmm. fii ñu teel a wuree nag bëgg naa ko. parce que revanche day am ci kanam. day am waaw loolu moo tax combat bi neex na ma torop ma am benn conseil bu may jox talfa rek. ma ne ko. fii ci làmb bu dul moodo Xarañ Lo mm-hmm. fii ci Parcelles Assainies mm-hmm. ñi fi nekk ñëpp moo ci raw ci cachet. moom ah ci combat bii mu mu bii mu jël nii quoi avant combat bi am na ñu ko rawoon non bu dul Modou Xarañ Lo pour l'instant nii moo leen ëpp cachet astaghfirullah ak franc ak franc waaw bu dul moodo ak franc mm-hmm. mën naa ne Talfa moo leen ëpp cachet loolu nag am jom mayewu ko yaafus mayewu ko ndimbalu suñu borom la na xëppi ay bëtam mu xool bu baax xam ne làmb da ko yaakaar mm. aveniru làmb la parcelle dañ koo gëm parce que gëm na ne ëllëg bu fi moo du jógee fanaa jóge fi donte ay ndaanaan yu nekk ngi biir mm. parcelle mën naa bokk ci relève yi parcelle yi di ko wax aussi tamit nekkoon mm. nijaayam ba mu ciy toll muy góor a soog combat jànq yëpp bëree na ko daan na fi ay ñoom jam ceeri daan fi ñoom Jokkel daan fi Mapol daan fi Cobra daan fi Mobile 2 champion yooyu yëpp daan na leen combat yu metti te boobu góor a fayeeku wutoon 3 millions. kon eh, moment boobu te góor a pili euh, période boobu mi ngi ci pili de ay 12 13 jëm kaw. comprendre nga mm. tey nag booy bi bu mënee ñëw enregistré 7 combats 6 victoire benn défaite mm. am benn nombre de cachet bi yéene nañ ko ko mm. mais aussi tamit bu nelaw. Modou Lo ba bëre duubalees numéro 2 doog a fayee ko 1 million sëriñ léegi millions yi dafa yomb de. yomb léegi benn xale ngay jóg ñu ne fay nañ ko 10 million fay nañ ko 8 millions fay nañ ko 5 fay nañ ko 15 xay fay nañ ko 20. Mm. dëgg loolu nag sawaay bu amee mbër bi da ngay yeewu. Mm. te xam ne làmb continué wul. Mm. comprendre nga na xippi ay bëtam mu xool. am na ci loo xamante bi nii man du lu may wax. Eh, mais xam na bu baax. loolu la quoi laa aussi tamit. na xam ne fee ca pikin boo ci génnee Ama génn ci Boy Niang génn ci Sokh mm-hmm. ña fa nekk moo leen raw ci cachet comprendre nga parce que xam naa li mu mujj bëree mm-hmm. contre Liss Ndiago mm-hmm. kon nag moom na xippi ay bëtam mu xool xam ne papam As Mbaye nekku fi yaayam Kumba Balde moo fi nekk te maire bi sonn na ci làmb comprendre nga këru làmb la juddoo muy këru Falaay Balde fekke fa lu nekk champion bu nekk jaar ci kanamam xëy na yàlla dogalut am mbër bu bu ko jàpp jëndal ko kër wala mu jëndal ko oto wala mu yóbbu ko maaka mais yàlla dogal na muñ na ba am doom muy pokola pokola na xippi ay bëtam xool mm-hmm. xar boppam bii mu def ci ndox te xam ne làmbi capital la am mu teel a voyager mm-hmm. dem liggéeyi mm-hmm. bàyyi ci yi mu nekk ci yi mu nekk boo déggee ma koy wax man du ma sànni mbër xeer du ma xalab mbër duma xas mbër parce que xaw ma ko ci ñoom mais ci yi mu nekk mooy mu fonk boppam xam man la kan parce que instant yi Talfa Pokola nekkatul n'importe qui fu mu génn ñu ne Pokola nga ne ngay sol yu set di sangu ba set yor sa téléphone ku la soxla man laa wo nga voyagé dem Maroc wala nga dem fenn entraîné ji sa waay Pokola tiitalu ma ko benn mbër ci kaw suuf xanaa mu ñàkk am doole mu ñàkk am doole nag ci moom lay dépendre xale la demagul fenn bu mm. liggéey am doole quoi Pokola bu pare talfa bu pare Mourou Anta est ce amateur li ñuy séntu si ñoom ñaar mën nañ ko gis. Serigne combat bi ñoom buñ parewul sax force dañuy teg bakkan ku ci doon dee doo bàyyi. <laughs> ça mooy li ma la wax li fi jaar daa jàll. Ah, li fi jaar dafa bëri arrière leen. Mm. ngeen xool seen làmb wala Lutte TV. Mm. wala Kewel Info wala mm. Gaston. wala Lutte Motivation ba ci wasaare ak jàmbaar news. dem leen ngeen tàppale tàppee Pokola Balde Talfa. xoolal yi jàll yi jàll moo bëri. moo tax ku ci xoolaat interview yi passé sa waay di nga rey sa bopp quoi. Mm. jërul kenn naa lay demal entraîné ji. Mm. Mm. ndax ku bi ñoom ñaar kan nga jàpp ni la bëreem gën assuré. non ñoom ñaar nag parce que boo dee boo boo dee xool ñoo bokk nu ñuy rythme bëre. parce que Pokola bu la jàppee day bëre. comprendre day dóor tànk. day bëre ci ay loxo mm. talfa aussi tamit bu la jàppee day bëre mm. rythme bëre ñoom ñaar ñoo ko bokkale mm. bu fekkee ne ci côté xeex ñoom ñaar ay mbër yu ñime lañ mais kee moo gën a nekk encaisseur kan pokola que tamit mais attention de yii dem leen seeti combat talfa ak jaasi pël Iba Mar la ilaha illallah combat bu métti ngi noonu Modou Anta lañ xaaral ma foofu ñaari encaisseur parce que euh, jour boobu bu fekkee ne day ruux wala muy joxe làmb dina ko jox jaasibal mm-hmm. jaasibal da ko wër ndoom ba dóor ko ba man ci suba si mm-hmm. bi may dem di ko jëli fee bi ma ko fekkee dama koo yërëm comprendre moo tax ñaari encaisseur lañ mm-hmm. mais combat bi ku ci ëpp xel ku ci teel a war yow yaay daan ñu doo ñu runkum daje ñoom ñaar war bëre non weccoo fay am ñoom ñaar bëre la boo xamante bi ni gis nga sëriñ rythme rythme bëre la day am xeex day am bëre combat boobu bu gaawee neex bu yeexee neex en tout cas daal ñu ngi félicité waa Alburaax bu baax. comprendre nga di. profité waaw xamul muy dëbb tëgg combat yu neex. waaw amateur amateur rek xam nga promoteur yi moom xaaj bi ay mbër yu yàqu lañ ñii ay hmm. amateur lañ ñi juddoo ci këru làmb moo tax daanaka sa waay li gars yi waxtaanee rek monteur yu baax ñoo boo heure. en tout cas kan. Ah, ah, ah, Amin dégg naa bëre de. <laughs> Aziz Aziz ban naa bëre de. waaw seetaan naa combat ak Assane Ndiaye de. Assane xaw ma bàyyi ak Assane Ndiaye am na ku ma seetaan seen combat kay waaw. affiche lay fàttali si mbër yu mbër yu mag yi. waaw mooy benn bi rek 21 mars 2010 Balla Gaye 2 Modou Lo. loolu la rek ñi ngi xaaraat ay yeneen combat yu taxawaat yu war a mel nii ku ci mel ne ay liis njaago aada faas bu gaay ne jotagul fii lamb bu fi taxaw war naa taxaw comprendre nga combat bu taxaw logique na instant yi lamb nekkatu ci benn contexte maanaam maa raw diwu maa ëpp cachet diwu lamb léegi affaire de mbooloo la affaire de mafia yee di profité di nuyuwaale alaaji makan beng bu baax di ko jox wàccuwaam di wax ne gars yi incha allah mardi bii di ñëw mm-hmm. am nañ pour le 28 juillet fële ci TFM mm-hmm. si diggante kii euh, euh, journée de calaf bi ak prince Jokeel <coughs> Baye Ma Ndiaye ak Jeex Jàmm Bib Diop aussi tamit ak Naaru Sogaas Babacar Balde ak euh, Ablaye Diop bu yoof bari na ay combat yu ci am quoi ñu ciy woo amateur yëpp waaw di nuyu sama gars yëpp ñoom Galso 94 maa ngi koy siyaar Fallou Fall maa ngi koy béggee bu baax a baax baax ku ci mel ni Mora Couture maa ngi koy siyaar moo njaay directeur ñoom Serigne Dour suma gars yi xam nga ak du taal bu xarañ loo suma waa ji maa ngi koy béggee bu baax noo xama rek dama laa mayoon quoi bañ a nuyoo quoi bañ a guddal émission bi quoi maa ngi nuyu suma gars may seetaan yëpp mm-hmm. macha allah euh, Talfa Pokola ñoom ñaar doyo combat bi ku nekk xam na fu mu toll Talfa am ndam wala Pokola am ndam seen làmb ëllëg non ñoom ñaar ñëpp si yam tey astafurlah parce que ku ci am ndam bokkut ak ku am défaite quoi. Mhm. sans ci ni ngay daanoo parce que dafa am victoire yoo xamante day am fu mu lay yóbbu. Mhm. mais am na victoire yoo xamante bi nii fu la yóbbu. Mhm. yóbbu na fa des. loolu boo ko weddee xoolal ci combat Pokola ak Liss Ndiago. pourtant Liss moo daanu de. Pokola moo am ndam ci kawam par avertissement. mais teewul fu Pokola taxaw félicité wu. Liss Ndiago taxaw na fa félicité wu parce que lamb jaa neex. dañu wone affaire de góor. Mm. affaire de jàmbaar. moo tax ma ne la ñoom ñaar bu ñu bëree noonu. Mm-hmm. nit man na cee daanu ba pare njëkk a am. combat ki daan. ba pare wala mu gën a cher kase. Mm. ki ko daan. sans départ moo tax làmb booy bëree. Mm. woneel ngar woon jëm. woon fulla ak fayda quoi.